même bi problème yi di am daaw jëg man woowuma kenn ne ko kaay gunge ma moo tax kenn mënul génne seen affaire u tappale ñu doon def naan trouble à l'ordre public mënaluñ ma ci dara ndax mosuñu maa gis ma def déclaration ne gars yi ñëw leen gunge ma bañ ma buggee forcer bu ci njëlbeen ba kay laa ne woon sama droit à la résistance ndax constitution moo ne ku ñu bëgg a jaay doole am nga sañ-sañu lànk résister waaye bi ñu jaaree fi ñu jaar ba n levé nañ immunité dama jóg dem ne damay ji kon suba li may ñaan nit ñi ndaw ñi surtout bu kenn naan damay dem kër Ousmane Sonko wala damay dem tribunal wala damay dem fii wala fële audition man maay dugg ak samay avocat jàkkaarloog juge bi ñu waxante li ñuy waxante ma ñibbi sama kër loolu jaru génn moo tax ma leen koy ñaan